citron à la menthe gingembre citron miel taille à polos. mais du ne de rien voir. gis ni citron à la menthe et gingembre citron miel à taille polos. man to attaaya la man lo lay présenté wo samay dom tay do len ne sen papa lu muy def danaan sam papa to attaaya la dama len koy wax ku len wax sa papa lu muy jaay ko to attaaya la sam papa tee lay jaay bañ koy wax bobu yegg si wu ma fii de ngi tambalé géej ne di sol euh, lacoste tri tri traiteur yi ah moy tri traiteur bi mo nekk noonu lacoste am la sol en bleu dañuy def emplacement yi dagg limon yi firi naanaa yi génne yi si war warta dem ñu génnee ko yi si war a dem ñu def ko ci yàllandi raxas mu set dagg limon yi def liñ ci war a def yëpp teg euh, tànk ndox jël mesure mesure par mesure la ñuy def maanaam quantité ndox bi ñu def ko teg gaz yi tàmbali parade bii moom laa tàmbalee maag benn soxna bu ñuy wax xadi xadi Diallo yaayam tudd Daba ba muy xale la ñëw ci man ma tàmbaleek moom ci termoos bi ci euh, casserole bi sama goro joxoon ma ko ñu koy wax tumbat mbay yàlla na ko yàlla yërëm téye ku baax a baax moom ma ko joxoon ma di ci liggéey di ci liggéey ba mu xar ma jël ko jent ko muy souvenir bu jéggi daya bu rëy bi may doog a démarrer ni mu méttee woon mooy sama xel da daj ci dara ma bëgg ko duma ko mën duma ko am ma doon jéem jéem googu daf ma doon indil ay coono ak ay risques yu metti waaw noonu la doon méttee mais saa yu ma génne ci loolu rek damay taf sama gémmiñ naan ah lii ma def lii ma def moom yéeme na di ma xam ni ndimbalu yàlla suñu borom moo ma ci génne dañuy couvrir ay événements yu bari mariage xam nga réception kii mariage ngénte xam nga ay affaire politique yi événement bu mu munti doon dañ koy couvrir ca na ko bëggee. ak fu mu munti doon ba pale pale du ñu woowoon pale Macky du ñu woowoon nii Macky Sall pour ñu couvrir côté dañ fa yóbbu matériel yoo xam ne suñu xaalis bopp lañ koy yóbboo. après dañ ko liggéeyal liggéey boo xam ne dina mucc ay ba nga xam ne moom du ko tiimee xelam dina nangu pour mu jëfandikoo ko.